xibaar bu tiis bi nga xam ne ni moo dal nag doom yi rawatina nag njabootu kii di caporal chef Fall mi nga xam ne ni doonoon nag commando demoon nag fi nga xam ne ni moom moo di ca Mali mu di Kidal te nag bakkanam rot fa. tey jii nag ban ko indiyee fii nga xam ne moo di ci grande mosquée bu Saint-Louis nar ko jébal boromam ñi nga xam ne ñoo di ay kilifaam ñoom nag gërëm nañ ko sant nan ko ci liggéey bi nga xam ne yàgg na koy def ci biir armée bu Sénégal. waaw xale bi di caporal chef Ousmane Fall yor naa ko juróom-ñaari li ma xam ci moom mooy yar ak teggin ak liggéey dëggu bëgg kilifaam bëgg métier du tardé ndaje loo ko sant mu def loo ko defal la ko fekke na tamit jaloore yu bari ci suñu bataillon muy ci Casamance ak ci biti comme ni ko nasaraan di waxee rek attentat la bi am ci benn banque suñu borom dogal ko xam ni rendre hommage suñu jàmbaar yi nga xam ne dañoo dee si xare Euh, loolu nak euh, metti la mais nak euh, lu rëy la parce que loolu lu xam la suñu valeur la ñun danoo yàgg di di xeex di wane suñu jàmbaar di suñu suñu naataangoo yi suñu mbokk yi mbokk yi nekk maanaam ñu ñun dëkkandoo suñu dëkkandoo yi. kii nag di soldat bi di Ousmane Fall génn àdduna gannaaw ba mu amee ñaar fukki at ak ñett bàyyi nag yaay joo xam ni ku gëm yàlla la. Ousmane ndegam maalu sukk jur yàlla na nga xippee àjjana ndokkal firdawsi ndegam maalu sukk jur yàlla na nga xippee ci àjjana yu kawe ya firdawsi ci daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke waxtu yàlla yu barke weeru tedd bi yàlla boo geestu yàlla boo réccu dara faal yàlla boo réccu dara faal. gannaaw ba ñu taataanee ci nag ñi nga xam ne ñoo di ay mbokku soldaaram ni nag doonoon na soldat boo xam ni bu matoon la doon def kii di nag caporal chef Ousmane Fall moom nag ñi nga xam ni ñoom ñoo Sénégal moom nag ñu jébbal ko boromam ci kanamu ñi nga xamee ni ñoom ñoo di ay officier sous-officier ak soldat yi nga xamee ni ñoo nekk ci commando rawatina nag fi nga xamee ni moom moo di ci saylu tamit ak yeneen i soldat ñu jébbal ko boromam fi nga xamee ni moom moo di ca caaka